Mubarak rahmaani rahiim alhamdulilahi rabbil wasalaatu wasalaamu ala ashraf almursalin sayidina wa maulana muhammadil amin wa ala wa sahbihi alxurril mayamin wa man bi ihsanin ila yawmi ddin ñu ngi woon ci seen téere bi tudd garabuk tuuba ci xaajum ñaare bi ñu weesu woon waxtaanu ñaar téeméer ak ñeent fukk ak juróom ñaar am na ku ma sa wax sëriñ Tuubaa xaada lawoo laaw maxtaar lawoo dama dama bëgg nga dimbale ma baa mel ni Ibra Faal sëriñ bi ni ko faat na yéen ñi fi nekk ñu leen di wax ay murit saadix kenn ku ci ne bi ngay dikk dangaa def sa bopp ñeenti xaaj benn xaaj bi nga sédde ko sa bopp benn xaaj bi nga sédde ko say mbokk benn xaaj bi nga sédde ko sa borom benn xaaj bi nga jox ma ko Ibra Faal bi mu dikkee ñeenti xaaj yépp la ma jox boroomam mi ko bind la njëkk a bàyyi wér na Sëriñ Tuubaa xaadalawoo law maxtaarlowoo bi mu nekkee di waaj demu géej gi mas naa wax waaye juru Sëriñ Basiiru radiyallaahu taalaa anhu daa mel ni danga amu jaaxle mu ni ko lool sëriñ bi ni ko du dara lool yi nga àndal boobu sëriñ Basiiru ganewul àdduna mu ni ko loolu yi nga àndal diisoo na maak moom lu mat fukki at ak juróom ci sama dem gii ba nee na ma danga dem danga dellu wér na sëriñ bi daana wax ak róoyi bu wér ñi faatu ak ñi dikkagul walaw alam sëriñ tuubaa xaadalawoo law maxtaar lawoo mas naa wax sëriñ basiiru radiallahu taala anu sama yoon wii ab tabax la yaay ki koy tabax dénk naa la ko bu ci dara yàqu wér na sëriñ Tuubaa xaadaloo law maxtaarloo mas naa wax sëriñ Mouhamadou Moustapha ak sëriñ Bachiru radiallahu taala ma dama bëgg ngeen ànd te taxawu yoon wi siiw na Cheikh Ibrahima Sarr radiallahu taala bi mu faatoo sëriñ Tuubaa xaadaloo law maxtaarloo daa wax ni nañu ko yóbbu Tuubaa mel ni daa am ñu bëgg ñu denc ko njaareem sëriñ bi wax ni nañu ko yóbbu Tuubaa Tuubaa ak njaareem ñooyam képp waaye Ibra Sarr Touba la war a dem am na ñoo xam ni su fekkoon Touba gën ci ñoom du leen fóol fii ma baabu ak séer radiyallahu taala anhuma waaye Ibra ba noppi mu wax ay doomam yu jigéen yóbbu leen fi bërëb ñuy jàng xasaa it am kuy dëbbe ñu ngi def di aw bu ñu jàngee ba mu guddi mu indi leen kafe wala attaaya xelli leen waxtaana leen ñaana leen am na bis mu andi leen kafe ba ñu naanee ba noppi mu ni leen xam ngeen li ma sama boroom defal ci kafe warga mooy attaaya ñu ni ko déedéet Sëriñ Tuubaa xaadalawoo law maxtaaroo ni ma leen ko misaale mu ngi mel ni ñett ñu am seeni jàngoro jàngoro mooy tawat kenn ki jàngoroom ji yaakaar na ni jàngoroy doktoor rekk la jërul muy wut sunguf ak reen sungu mooy lu ñu dëbb jërul muy wut saafara baya boobu mu wut doktoor bu dee faju foofa lay fajo kenn ki jàngoroom ji yaakaar na ni jàngoroy saafara la jërul muy wut doktoor jërul muy wut sunguf ak reen baya boobu mu wut saafara bu dee faju foofa lay fajo kenn ki jàngoroom yaakaar na ni jàngoroy sungu fag reen la jërul muy wut doktoor jërul muy wut saafara baye boo mu sungu fag reen bu dee faju foofa lay fajoo waaye man li ëpp ci sama saafara saa dama ko defal ci kafeeg wer ga wér na mel na ni baatub àttaay la ëppoon lu muy jëfandikoo ci warga walaw alam sëriñ Tuubaa xaada la woo law maxtaar la woo nee na xasiid ak waxaani xafiisun lu mu mënta def ci nit maamu dindi ko ci def ko ci walla dindi ko ci dana jafe siiw na wala wér na lool loolu moom li koy firndeel li mu wax ci biir ni day fekk bépp ñaawteef walaw alam Sëriñ Tuubaa xaadaloo law maxtaaloo mas naa gis xasaayid ak waxaani ci téere soxna xastu gaawaan radiyallaahu taala anhu jàng ko ba noppi ni ko foo ko jële mu ni ko ci sama ndey laa ko jële sëriñ bi ni ko bi ma nekkee ci liggéey bi yóbbuwoon nañu ma ci bërëb boo xam ni am naa fa ab diir am ñu ñu ma booleel ci jaamu yàlla laay xëy di ci gont di ci fanaan ñoom ñuy mooy yàlla di ci xëy di ci gont di ci fanaan am na bis yegg naa foo xam ni mënumaa wàcc suuf ci kawlal bi ci laay jàppe ci laay jullee sunu boroom wax ma ni wala yaxsimuka mina naasi ma daal di tàmbali xasiida gi bi may agsi maharus li wal malaa gisatu gisatuma dara lu bokk ci ñoom walla gisatuma dara lu bokk ca loola xam naa am mu doonoon mën naa am mu doonoon tawat wala leneen lu ko tere mën a wàcc lal ba xasida yépp nag am na ñu jeexit waaye gu ci ne mi ngi gën a mën a jeexital ca la taxoon mu def ko wala alam am na ci taalibe yi ku mas sol ay sagar romb Sëriñ Tuubaa xaadalowoo law maxtaaralowoo mu koy xool ba mu yàgg mu ni ko waa ji demal soli yére sa bàyyi sa bëgg àdduna gi siiw na loolu li muy tegtale mooy sëriñ bi da koo wax li ci xolam walaw alam sëriñ Tuubaa xaadala walaw maxtaar loxo mas naa way ay way yu jëm ci mu Musaylamatul kasaab bi ko sëriñ ma bànji xujja gisee daa wax sëriñ bi ni ko yaakaaroon naa ni sa xalima du yuut du yuut lu mel nii yuut mooy génne sëriñ bi ni ko wallaahi musaylamatu du xam sama tey xalima xëy na muy xasiir ak man jaabil xasana alam tara anna allaha axza bi dikrihi musaylamata alkadaabi isjaawa shayaha sayatruduhu abdulilahi wa jaaruhu xadimu rasulillahi tardan musafaha naha nahwahu naxwi bi tardin mushayaan bi tayiri zilhay zuumi wal kibru safaha sëriñ Tuubaa xaadalawoo la maxtaaloo nee na nax sa bopp moo raw paj siiw na pañ paj mooy ku ñu liggéey ba mënatuta def dara wala alam am na ku ma sa wax sëriñ Tuubaa xaadalawoo la maxtaaloo damay def lu baax waaye daa mel ni dama jigoon sëriñ bi ni ko jigadiwul kenn mi ngi mel ni ndab lu ñuy duy te feesagul naka noonu safaan ba jigul kenn kon booy def ab safaan te gisoo dara itam waxtaan woowu siiw na kon booy def ab safaan te gisoo dara itam mi ngi mel ni ndab lu ñuy duy ak lu bon bu tuuroo rekk nga xam ni lii baaxul walla alam sëriñ Mbay Saar radiyallaahu taala anhu mas naa ànd ak sëriñ Tuubaa xaadalaw la maxtaalawoo kër komaan nang ba ñu àggee xaj ba wuti sëriñ may saar sëriñ mbay saar songoog moom ba mu yàgg mu jekku xaj ba ba mu ko bàyyee mu daw wuti boroomam sëriñ mbay moom it daw laxasu ci tànk sëriñ bi di def ni xaj bi di def sëriñ bi ni ko mbay saar li ngay def lu mu mu ne ko xaj la may xaj te maa ko gën boroom yàlla nañu yàlla taas ci barkeem wala alam waxtaan woowu moom it siiw na mas xaalis ñi ngi ci nettalib ñaar téeméer bi ak juróom benn fukk mas am ku takk ñaari jaaro yu xaalis ñëw ci Sëriñ Tuubaa xaada loxo law maxtaar loxo mu ni ko lu tax nga takk ñaari jaaro yi te góor benn la war a takk mu ni ko benn bi day sab jaaro bi ki des jaaro maam Ceerno la sëriñ bi ni ko xoolal bu la ci neex nga takk ko te tekki bi ci des ba mu ko defee ba noppi sëriñ bi ko takk samab jaaro mbaa takk jaaro Ceerno lu te ne njariñu lu ci ne jariñu nga ci jublu te man képp ku wuuteeg sunna si yonante bi salallaahu taala alayhi wa sahbihi wa sallama jariñu ci man mënoo jariñu ci ceerno siiw na am na soxna su masa xëy si sëriñ tuubaa xaada lahoo lahoo maxtaara lahoo mu ni ko xabibu nu mu def ak biir ba mu ni ko yëgaguma ko mbàkke sëriñ bi ni ko demal seeti ko mu dem laaj ko mu ni ko yëgaguma dara mu ñëwaat sëriñ bi ni ko tawat jéema tàggu waaye bu yegsee nañu ko wutal daakaanday werak werak garab la kuy sax ci sunu àll yi na ko wutal daakaanday werak ak miskit dëbbu ko ba mu mokk mu di ko naan dana wer ca bis boobee la ko tawat ji dikkal siiw na wala loolu mooy gàttal gi mel na ni Sëriñ Tuubaa xaada lahoo law maxtaara daana moytuloo taalibe yi di naanu suukar bis bu set te doo ko booleeg lu wex wala ngay naan lu weer wu nekk wala fukki fan ak juróom siiw na am naa sax ay waxiin yu ma ci dégg waaye dama koy bañ a indi di soppi waxiinu sëriñ bi walaawu alam sëriñ Tuubaa xaadala walaawu maxtaaloo mas naa toog ba yoor yoor mu ni weer wi dana feeñ ñu ni ko weer wi kat feeñ na sëriñ aafiyatu ñang radiyallaahu taala lu gis na ko sëriñ bi ni xanaa du aafiya sama moom ñu ne ko waaw mu ni demal woon ma ñu daw woo ko mu ñëw sëriñ bi ni ko aafiya bu ngoonee weer wi dana feeñ mu ni ko weer wi kat feeñ na mu ni ko teg nga ci sa bët mu ni ko waaw ba woor naa sëriñ bi ni ko aafi gaawa raxas bët aafe raxasal bët yi raxasal bët yi sëlmul mu daal di sëriñ bi ni ko gaawal naan mu daal di naan sëriñ bi ni ko aafiya mu ni ko mbàkk sëriñ bi ni ko ku war tey ba jant so xamuma ku mën a yóbbu àjjana waaye du ahmadu mii nun de ko xëy na daa bëgg a wax ku safaanook moom ndax wa man xaalafa ni abaada loo ni ko loolu yi weer seytaane la ñun xàmme nañ weer ak lu dul weer weer buy feeñ yàlla dama naan ahmadu weer bu ngoone dana feeñ weer buy feeñ day ñëw ni ma dinaa feeñ weer buy xëy tàggu ma buy feeñ tàggu ma yàlla itam dana ma ko wax fekk na yàlla ci boppam tuuf na ma ba bët yi naqariwul xàmmee naa luy weer ak lu dul weer loolu seytaane la day fëkkaatu rekk ñaari malaaka yi dikk nañu ŋàbb nañu buum gañu koy takke takk loxo ya ak tànk ya dikk ni ma weer day feeñ ginnaaw bi yàlla waxee man weer wi tàggu ma yaari malaaka yi dikk nañ ni ma dañuy jàppi seytaane weer wi day feeñ bu ngoonee dañuy takk tànk ya ak loxo ya daal di tàllal baaraam ba ni taax mu xonq mais ca biir géej ga ca lañu koy daane taax mooy tabax xonq nag moom aw melo la taax ma taaxu weñ la dër ba dërub weñ la bu fi ñaar lëj loo ba mu xumb kooku bi génne ak dëgg seen diggante kooku moom nu mu tudd lëjloo nag xëy na mooy xuloo bu ñaar lëjloo bu ñaar xuloo daal ba mu xumb kooku di génne ak dëgg seen diggante kooku moom nu mu tudd Sëriñ Isaa Jeen radiyallaahu taala an ni ko bu fi ñaar xuloo ba xuloo ba metti dañuy dem ca buur mu àtte leen sëriñ bi ni ko ku mu jox tooñ ganag kooku moom nu ñu koy def mu daal di fab ay loxoom yóbbu ca gannaawam di ko xamal ni dañu ko yeew Sëriñ Tuubaa xaada lahoo laahu maxtaara lahoo reeni loolu laa leen doon waxkat ñooñu ñuy tudde buur dañoo mënta takki loxo malaayika rekk mën a takki loxo malaayka moom bub jaam tooñee boroomam ba sunu boroom boole koog moom buy takk loxo ya day fab loxo ya jëpp ca dënn ba ñodd mu loxo ya boobu nga xam ne bu Tuubaa toppee loxo ba noppi moom la ci ba mu salit salit mooy maam maam tiit buum boobu nu mu tudd Sëriñ saa Jeen radiyallaahu anhu xan ni ko ak ceem Sëriñ Tuubaa xaadiloo lahum maxtaar lahu yëkkati baaraamam mu jëm kaw mu ni hàkkasa kooku laa wax kooku wóorut ba noppi nag ñu naa ko yow xanaa dangaa wóorut mu naan wóoruma seytaane rekk a ma tee tooñ na ko seytaan mi nekk ci ciitiif takk nañu loxo ya takk tànk ya fob loxo ya dëpp ca dënn ba ñoddi mu fëll ca gannaaw ga mu defeenu siis woowu kat bala caa jóge weer wa daa jeex weer wi génn ñu ni weer waa nga nee te muy dëgg ka takkoon loxo ya daa di teg ca loxo ya daldi di roppi tànk ya tijji ma bi muy wax bi muy wax moom Sëriñ Tuubaa xaadalawoo la maxtaarlawoo taax mu xonq mee ca géej ga lañu ko daan wax daa waxaale woon tubaab bu tëjee am taax ba noppi noonu mu koy def sëriñ Isaa Jenn radiyallaahu anhu ni ko kon naa ne sëriñ bi ne hakaza def nañu noonu seytaane bu weer wi feeñee ku wóorut bu weeru feeñee ku wóorut sa bakkana seytaane yàqalul kenn ci weeru koor takk nañu loxo ya ak tànk ya dëpp loxo yi ca dënn ba mu fëll ca gannaaw ga moom mi ngi ciw tiis te balaa jug te tiis wa weer wa daa feeñ foofee bu ñu ko tijjee ba weer wi feeñ ñu naa ma nga nii seytaane wër na fi àdduna ñaari yoon xaat ba di ko yetteel daldi jooy daw jëm foofee féete kër Ibrahima Faal radiyallaahu taala anhu waaw dani foofee bu ñu ko tijjee ba weer wi feeñ ñu naa ma nga nii seytaane wër na fi adduna yaari yoon xaat ba di ko yetteel daldi jooy daw jëm foofu fii féete kër Ibrahima Fall radiyallahu taala anhu nu mu tudd ñu ni ko nunka mu ree foofu la jëm de foofu lay fanaan daldi wax wi daldi wax ni weer wi nee na dana feeñ kooku nga xam ni bu ma waxee ba noppi mu topp yoon wu gudd wi siiwal li ma wax na ko yëgle kooku nga xam ni bu ma bu ma noppee mu topp yoon wu gudd wi siiwal li ma wax na ko yëgle kooko daa waru fas topp yoon wa di wax sëriñ bi nee ku baax ki nee boroom tey ak ëllëg nee bu ngoonee weer wi feeñ mu di dégg ngeen di wax loolu di dem ba mu yàgg mu soppi wax ja ba mu tolloo kër Cheikh Ibra Faal radiyallaahu taala anhu ni sëriñ bi nee na ñépp waaj ñëw këram seenu weer wi li muy sori sori Sëriñ Tuubaa xaada la wala maxtaar la dégg na ko ni hoo hoo hoo kookee day ma ngay dolli laa waxoon nañu ma ko dab mu del si ñu dab ko mu dikk sëriñ bi ni ko tàmbuleel foofee ma tàmbulee yam foofe ma yam ñun dey ku yokk suñuy wax mbaa nga wàññi ko xurwu ta xurwu tàng wa sawara lay wax boo ca dëkkul da nga ca am ñetti noor seeni nawet tàmbulee leen fii ma tàmbulee yam fii ma yem moo gën de néewuma nañu ñëw ci man néewuma nañu ñëw sama kër bu jënd see fu mu fekkub jaam warangikul warangiku mooy wëlbatikul xool saw weer wi dana feeñ loolu laa wax de mu daal di wàññeeku di wax li sëriñ bi wax wér na lool su ko defee waxtaan wi andi woon naa ko waaye bii moo gën a mat ci yenn anam am na itam lu ma ci indiwul te mooy Cheikh Ibra Fall radiyallahu taanu bi mu di bi mu déggee lii li mu wax loole itam dadul waxi sëriñ bi moo tax waaye bu ma agsee ci sëriñ Tuubaa xaadalaw la maxtaaloo ca timis la mu ko wax andi naa ko ci waneen waxtaan li lu mel nii ndax lu mel nii nag moo tax di topp téere yépp am solo moo lay leeralal lu bari wala alam mas naa am ku yanu ay bagaan mooy ay ndab lu rëy ñëw ci Sëriñ tubaax xaadaloo laaw maxtaar loo mu wax ñaar ñu fa nekkoon ñu yenni ko mu ni ko tànq ci te fexe ku nekk mus ci daa di ni yaru yare yombul gis ku ko def jar na sol daldi weñ di daw ba mu dammtoo nga jox ko loxo wér na lool Sëriñ Tuubaa xaadaloo laaw maxtaar loo bi mu jugee ci tukki bi daa ànd ak maam Ceerno radiyallahu taala anhu di xool yi mu fi wàccoon ba agsi ci baraada boo xam ni desu warga moo ca nekk mu laaj ko mu ni ko yaa ci doon warga ca bis sàngam di ko leeral ba sëriñ bi ni ko fàttaliku naa ko waaye bu doon yaa ko bàyyee foogu ma ni danaa ko mën nii waaye bu doon yaa ma ko bàyyee foogu ma ni dinaa ko mën nii li ma la ciy faye mooy bu ñu demoon ba sama barke jeex ci kaw suuf ba ñaar rekk dese ko kenn ka ci yow lay bokk siiw na Sëriñ Tuubaa xaadalawoo law nee na assaalixu ci maaska lonk ak saalixa ci maaska yat ci kaw li leen wuutale assaalixu lépp lu mu bëgg ci boroomam bala mu ko am faw ci coona la koy ame dana tuur deret dana sonn lool waaye dana ko am asaaliha nag loolu lépp du ci jaar day toog fi mu toog sunu boroom di yéwénal ay mbiram ba lépp sotti yal nañu sunu boroom def saaliha wér na lool Sëriñ Tuubaa xaada lahoo law maxtaar lahoo nee na lii may bëgg a wax ndax mu taxul ma di ko wax waaye képp kuy liggéey te liggéeyaloo ma sànk nga sab liggéey siiw na sëriñ Tuubaa xaadalawoo la maxtaar lawoo mas nay bind loo sëriñ Mbàkke Buso radiyallaahu taala anhu mu bind ca ilaa muridin saadixin sëriñ bi ni ko yaa ko seede war wër na mel na ni bataaxal yi jëm ci tubaab bi la ëppoon lu mu koy bindloo loolu mu koy laaj yaa ko seede daa bëgg li muy wax mu wóor ko kon maslaxa baax na lool waaye mbaaleen li ngay wax war naa dëggu ndax bu ci loolu amul bàkkaar bi day ëpp tuyaaba ji walaahu alam sëriñ tuubaa xaada lahoo laahu maxtaara lahoo nee na sariyaatu mooy yoonu diine mi ngi mel ni sa mooy ak gaal ci maxnaa ak tollooy xaraf ku ci dugg mucc na duggal ànd ak sa ñoñ siiw na Sëriñ Tuubaa xaada lahoo laaw maxtaar lahoo nee na xam yàlla mooy ajjana ju teew moo tax saa ni wali man xaafa maqaama rabbihi jannataani wér na ñu ne ci ñaar téeméer bi ak juróom-ñaar fukk a wax Sëriñ Tuubaa xaada lahoo laaw bu ko jubloo xamal ni nangu loolu nga wax waaye mu jublu ci maslaha ak bégal ko wér lool ci mbindu sëriñ bi muy wax ni malaaka yi ak ñi faatu dañu koy siyaar si wallahu alam sëriñ Moor Penda radiallahu taala anhu mas naa wax sëriñ Tuubaa xaada lawo lawo maxtaar lawo daa am lu ma bëggoon a ñaan sëriñ bi ni ko ba nga ko ñaanagul lañu la ko may ana lu mu mayees ne la sax lu ko ëpp mun ko dama bëgg nga may ma ci sa daraja ka njëkk a jébbalu ci yow ba ka mucc bu ci kenn nammee dem sawara na ngay réyal sama yaram wi ba mu rëy ba mu fees dell sawara nga def ma ci te ñoom ñu dem àjjana sëriñ bi ni ko loolu ba nga ko ñaanagul lañu la ko may mayees na la sax lu ëpp loolu wér na mel na ni lu mel nii danañu ko waxal sëriñ daama abdourahman ba tey radiallahu taala anhu walaahu alam sëriñ tubaa xaadala maxtaar loo mas naa sëriñ abdourahman loo ak maam cheikh ibra faar radiallahu taala anhuma ba ñu dikk mu daal di rëdd warale ni daa rëdd aw rëdd nii def lu mel ni nen nii def ñetti tomb nii maanaam ci biir ni Abdourahman mu ni ko Mbàkke mu ni ko yaa ngi nii Ibra mu ni ko Mbàkke mu ni ko yaa ngi nii manit maa ngi nii pay bii ñu bokk nekk nun la fi boole fal waaye ki nu fi waaye ki nu fi boole fal dama wax ni maa leen lu jottali ci seen payug liggéey ki ñu fi boole fal damaa wax ni maa leen di jottali ci seen payug liggéey maanaam lu ngeen di am ci moom rek ci man lay jaare lool mooy maanaa bi kon Sëriñ Tuuba waxtaan woowu wér kon Sëriñ Tuuba xaadalewoo mooy buntu yàlla subhaanahu wa bi nga xam ni képp ku ci jaarewuli yàlla du la fay lu mel ni sëriñ bi waxoon na ko sëriñ Malick Basin si radiallahu taala anhu wallahu alam sëriñ tuuba xaada law maxtaara lahoo nee na abdurahmaan moos bu saa boroomam daganaloon boole doom yu jigéen ci benn sëriñ kon lu ñu may ñu may tudd ci wàllu jigéen noonu laay def wér na ñu baamuwaat lool ndax mu leer sëriñ tuuba xaada law maxtaara lahoo nee na abdurahmaan moos bu saa na daganaloon boole doom yu jigéen ci benn sëriñ kon lu ñu may tudd ci wàllu jigéen noonu laay def wér sëriñ bi day xamle dara jaam lu mel ni yonente bi salallahu taala alayhi bi waxoon na ko ci sayduna osmaan radiallahu taala anhu walaw sëriñ kumba sëriñ kumba radiallahu taala anhu dani bis sëriñ tuubaa xaada la maxtaar la man dey yàlla bëggaluma ko dara sëriñ bi ni ko bismillah gumma nga ni lan mu ni ko yàlla bëggaluma ko dara sëriñ bi ni ko mbaa yëg nga ni soo ko bëggaloon dara yoralu la dara ba mu la bindee ba noppi dalaa bindal mbooleem li mu la nar a jox boole laa koo xam ne nii dani la àndal ak kooka yore lu ma la dara kat wér na loolu mooy man yuti rasula faqad ataa wa ma ataakum rasulu faxuzuhu ki la yàlla booleel mooy doon sa bunt ci yàlla subhaanahu wa taala la seen boroom di jox lépp ci moom la koy jaare naka noonu yow ma xiyaam buy woote gis nanu ni njiit yi lay woo yow na don kulla unaasin bi imaamihim walaw alam sëriñ Tuubaa xaada lahoo law maxtaar mas naa wax sëriñ du Xari Mbàkke radiallahu taala anhu ni ko fa ma nekk dama fa mënuta nekk di wax ak yéen fii su ma bëggee wax ak yéen fii damay dikk ba fi yéen ma amu melo ma mën a waxee ak ma wax ak yéen ndax yéen doomu aadama mujj alayhi salaam mooy seen maam te aadama mu njëkk ba ñu koy tin tin mooy bind maa ko teewe siiw na bi sëriñ tuubaa xaadalawo la maxtalloo nekkee njaareem sëriñ malik basin si radiallahu taala anhu dadaa def bu nooree mu ànd ak ay taalibeem ñëw di liggéey ci kër sëriñ bi am bis ñu liggéey ba wàcc sëriñ Malick ba sëriñ Malick ñëw di leen nuyoo leeg sëriñ bi bi mu noppee sëriñ bi tàngale leen kafe ci loxo boppam bi mu noppee sëriñ Malick di jottali ku mu joxit doo naan dangay ngay bi ñu matee sëriñ bi ni bismillah fas leen ci li ngeen bëgg te jariñoo ko sëriñ Malick ni ko nun danoo mënta fas yaay ki mën fas yaa nuy fasal sëriñ bi ni leen fasal naa leen ci mbóot ak ngërëm ak barke wér na am nañu sëriñ tuubaa xaadaloo law woowoon di leen tàngalal baat boobu mu ci teg daa daa moo tax ñu ñu ko ñu nit am na daal lu mu leen doon tàngalal ba mu leen joxee kaase ni leen bala ngeen a naan ni ngeen diglu ma defal leen ci pas-pasub jariñu ku ci yote ab kaas guux bu njëkk ba dangay wax bismillaahi maxfiratullah ba ca tegu nga wax bismillaahi rahmatullah ba ca tegu nga wax bismillaahi rilwaanullaahi lu ngeen ko gaaw gaawaat teg fi suuf dee leen ko wax wér na su ko defee fi ma ma sottee lii moom rilwaanullaahi la jiital waaye yaakaar naa ni lii ma ko tegalee moo gën a wér na xafoorun rahimun ba fi ma sottee lii ñett yépp bismillaahi rahmaani rahiim ngay wax loolu nag moo gën a gàtt waaye am na nettali yoo xam ni bismillaahi rekk lañu andi walaahu alam soxna astu gaawaan radiallahu taala anhu sëriñ tuuba xaadala walaaw maxtaxloo nee na ko boo dee naan kafe loo ci fas dees na la ko defal wér na loolu yi murit yépp la li tax mooy am na waxtaan woo xam ni da ko matale waaye soxna si mu wax loolu ci boppam da ci am ganeen jagle goo xam ni keneen du ko am ngir barkeb waxi sëriñ bi radiallahu taala anhuma alam am na ku mas a toog ci sëriñ bi ba mu yàgg mu ni ahudu billahi min asheytaan rajim sëriñ Tuubaa xaadalawu laaw maxtaaraloo ni ko rab yi moomu ngeen di nëbbu xam ngeen ko 지금 bu ñu bàyyi woon juróom-ñett yëpp jublu seen borom leneen wàccee xéewal boo xam ne danañu ci mën a jaamu yàlla te dootuñu sonn. juróom-ñett yi mooy xam yàlla te topp la ko jàng alxuraan te doo jëfe la muy digle bëgg rasulullahi sallallahu taala alayhi wa te doo jëfe sunnaam lekk xéewali sunu boroom yi te doo ko sant mukk bëgg na te doo def lu la fa yóbbu mukk ragal sawara te doo bàyyi lu la fa yóbbu mukk muslu seytaane ci kaw te ànd ak moom ci biir suul suul ku faatu te doo waaru mukk siiw na sëriñ Tuubaa xaadalawu la maxtaaloo mas naa wax sëriñ Moor Penda radiyallaahu taala xanu sunu boroom may na seen àndandoo ji yenti yëf yoo xam ne ku dul seen àndandoo ji mayu ko ko te doodu ko may kenn may na seen àndandoo ji waxtu wu ab jaam ñëwee ni ko dama laa bëgg a liggéeyal mu yóbbu ko fi bërëb di ko liggéeyloo mu nekk ca liggéey ba ba diggam ba ñëw te liggéey ba jeexul mu fekk fee dundub jaamub yàlla mu fekk fee dundub jaamu yàlla boo xam ni dundam nga defulu ci yàlla dara mu fob dundam da jox ko kookee mu doon liggéeyloo liggéey ba ba mu jeex mu door a wàcc fob dee xam nga muy faatoom nga jox kooke may na seen waa ji it malaayika yi bind jëfi jaam yi lépp lu ñu bindal waayam bala ñoo dem fakk leen ko doon binduloo jaar fi moom lu mu fekk ñu bind ko te neexu ko mu far ko bindi fa la neen may na seen waa ji it saa su liggéeyoo kenn ba mu wàcc foofii ñuy wax bar sàq mbooleem lu mu liggéeyoon da koy fob denc ko fi bërëb dem di sàkk fa dencukaayu buur ba di ko jox ba ñu taxawal yowmal xiyaam mu boole koog lam ko liggéeyaloon jox jox lam ko liggéeyal mu boole koog lam ko liggéeyaloon jox ko ko may na seen waa ji itam waxtu woo xam ni suñ boroom digal na ruuy yépp ni leen jugleen fii ngeen tëdd te jëm ca pénc ma mu yeew ma na képp koo xam ni waaye ma dalay def wagg wagg mooy mooy mooy mooy boot dalay boot bu dëër ci ginnaawam boot cëppeel péel ca pénc ma Sëriñ Tuubaa xaadala wala maxtaar lowoo nee na fi darul xuddoos dama julli suba ba noppi di génn daje yonente bi sallallahu taala alayhi wa alihi wa mu ni ma yow laa doon seet ma ni ko mën mii laa doon seet mu ni ma maa ngi ma ni ko maa ngi mu ni ma danga manqué ñeent fukki at ak ñetti weer loolu nag jàpp naa ni dana ko war a ëpp xëy na kiy nettali moo fàtte li mu weeri waaye mën naa la def xutbu samaan ngay xaw su samaan mu ni ko am na leneen lu ma soxla mu ni ma loo soxla mu ne ko bokk ci ñi ànd yow mu ni ma loolu kat faat na ndax ñi ànd ak man dañoo jaay seeni deret ak seeni alal te loolu wéy na mu ne ko loolu képp laa bëgg mu ne ma loolu am nañu ko daan wax waaye bu ñu leen tegee yan bi day diis ba duñu mën a wéy mu ne ko loolu laa bëgg mu ne ma da ngay génn Tuubaa ndax ay du fi am mu ne ko foo defe ni bu ma fa demee ay wa fekk ma fa mu ni ma demal Jolof wér na lool Sëriñ Tuubaa xaadalawoo laaw maxtaar lawoo nee na danaa nekk foo xam ni dootuleen ma gis waaye day mel ni ku ubbi am taax dugg ca biir ubbunt ya lu ngeen def ma gis ko lu ngeen wax ma dégg ko wér na loolu wax na ko itam ci yeneen nettali boo ci baneen nettali boo xam ni moo gën a jot bii xëy na muy benn walla ki koy nettali soppi ko wala alam sëriñ Tuubaa xaadala wala maxtaaloo nee na ñi ànd ak man ñeenti xaaj lañu ñii ñi ngi ci dégg gu weex tàll ñii ñi ngi ci fen wu ñuul kukk ñii ñi ngi ci fen wu nëbbu ñii ñi ngi ci jaxase dëgg ak fen ñii ñi ngi jaxase dëgg ak waaye kii kiy teqale kiy tàggale tàggale mooy teqale waaye kiy teqale dëgg ak fen ci sama ginnaaw lay ñëw mi ngi ñëw bu dukkee dana tàggale dégg ak fen ñi may tuddoo te nanguwuñoo wuñoo jébbalu ñu ngi ci fen wuñul kuk ñi nga xam ni dañu jébbalu ñuy te nangu woo ñëw wuy si ñi ngi ci fen wu nëbbu ñi nga xam ne dañoo jébbalu ba noppi yëkkati seen bopp bàyyi ko fii te nangu ñoo wane ni ay taalibe lañu ñu ngi ci dëgg gu jaxasoo yaa ñu nangoo jébbalu nangu maa topp ñu ngi ci dëgg gu weex tàll yaa ahla bari waa jéeri bu ngeen dikkee jéeri ñiy jàng ci gaaw ci kaw gi te xamuñu laa wax yaa ahla ngeen dikkee géej gi woo woowuma waa géej gi ñi géeju laawoo te mooy ñu bari xam-xam xoojoo walbatiku leen li bari wuti baxari saqaa yi géejug tabe fee feeñ na lii ma leen di wax na ngeen ci jàpp na ngeen ragal yàlla te nekk ci ak njub te nekk benn lu ci waay am na ko bokk ak moroomam te ngeen gëm yàlla te xam ni yàlla mooy benn buur bu dul am ñaar bu dul am ñaareel ni képp ku ñu bind yonente bi moo gën sallallahu taala alayhi wa alihi wa sa moroom dikk naa fii ngir xamu leen ni ngeen war a toppee yonente bi sallallahu taala alayhi wa alihi ma bëgg yonente bi sallallahu taala alayhi ba nga xam ni moom rekk laa bëgg moom rek la yàlla bëgg ngir wan leen ni ñu ko war a toppe te mooy topp ko te doo ko booleeg dara wattu sa boroom wattu sa moroom wér na su ko defee xam naa ci biir waxin wi ni kii nettali dese naa andi xaraf yi lépp waaye jublu gi ñëw na lool bu ñu xoolee itam li mu wax lépp bind na ko mu ñëw ci waneen waxtaan walaw alam maam Cheikh Ibra Fall radiallahu taala mas naa tawat yabal ndaw ci Sëriñ Tuubaa xaadaloo la maxtaaraloo ni ko boo demee nga wax ko ni sama yaram daana xari sëriñ bi yabal ndaw mu ñëw ci Cheikh Ibra daa dee la taaxanu fekk ko mu tëdd bi mu agsee mu daal di jug ni ko lu mu la wax mu ni ko da mu ni ko dani ma demal seeti ko daa tawat mu ni ko lu mu la lu mu la jox mu ni ko dara loolu rekk la ma wax Cheikh Ibra daa dee la taaxanu ni ko yéene ñàkk xam-xam jox na la saafara de koo def ci say bët bi nga ma xoolee laa wér fi mu ne dara metteetu ma wér na lool sëriñ gàllaay say radiallahu taala anhu mas naa yónni ab taalibe ci sëriñ tuubaa xaada lahoo lahu maxtaara lahoo ay ginaar bi mu ay ginaar la ko yónnee bi mu ñëwee ba ci xur wi ci njaareem te seeg sëriñ moo awa njaay radiallahu taala anhu mu ni ko ci suba ba léegi ñi ngi lay gàttanu ñu ànd ñëw ci sëriñ tuubaa xaada lahoo lahu maxtaara lahoo mu ni ko ndawul gàllaay laa ngi nii mu daa koy mu daa di yëkkati ganaar ya teg fi kanam sëriñ bi ni yenn yi nañu ko yët mbàkke bu sa radiyallaahu taanu yenn yi ñu wéyale ko ca wana wa ndaw la ni ko sëriñ gàllaay nee na woon ma wax la ni noppam day metti sëriñ tuubaa xaadalaw la maxtaarloo tibb suuf jox ko ndaw la nee na bi mu agsee ba sëriñ gàllaay sotti suuf sa ci nopp ba daa sedd wér na lool sëriñ Madloo Dagana radiyallahu taala anhu bi muy seeti sëriñ Tuubaa xaadaloo la maxtaaloo ci géej gi daa jaay ab jaamam ak li mu am ni jaral na ko mu faatu waaye fu mu nekk dana ko fa fekk bi sëriñ biy jóge bi fi bi fi sëriñ biy jóge fekkul woon mu jébbalu nee na muy dem ba ab yóbbalam jeex mu nekk fi barab ba amaat lu mu demee daal jugaat waaye xaddiyee ji mu yore woon bi muy jóge kokki guy mi ngi yor mi mi ngi mu yor bi mu agsee Gabon ku ñuy wax balees la fa fekk ci nit ku ñuul mu wax ko ni Sëriñ Tuubaa xaadaloo la maxtaar loo laa bëgg a gis mu ni ko gis ko du yomb ndax tubaab yi yóbbu nañu ko te lor ko moo tax mu ni mu ni ko wan ma fu ñu ko yóbbu mu ni ko yoon wi boo ko toppee ba ca tund wële da ngay yéeg barastiku ca xurwa danga gis fa ñu ko yóbbu nee bi mu agsee dafa fekk ñu faatu ñu bari mu gis Serigne Touba xaada loxo law maxtaar loxo mu toog ci ak garab gu mag booba mi ngi ngelaw ngelaw lu tàng bi mu agsee ba sotti xaalis bi fi kanamam mu ni ma jox ma ab bant ma jox ko ab bant mu génn xaalis mu génn xaalis bi mu jaay woon jàmba ni ma Mamadou lii lu ko boole ak lii mu ne ko daa am sama jaam bu ma jaayoon boole ko li ma doon andi ngir xeeb ko sëriñ Tuubaa xaadaloo ko Mamadu defe woon ni ab jaam nga ab jaam goram di naan moroomus goram dimbalewu ko ca dem di ko jëndaat di ko jëndanteeg moroomam ni kuy jëndi bàyyi ma kii taxaw gënu leen ko ndey gënu leen ko bàyyi ki taxaw jaam bi lay wax kii di la ko jaay nga di ko jënd ni ko jëlewoo ko ci fitnaam ji dem di ko ko yokkal jëlewoo ko ci naqar wi waaye danga ko yokkal yéen ñépp ngeen di jaami yàlla bu leen ko defati neel mott mooy gaaw te fopp xaalis bi boo demee na nga ko delloo kala ko joxoon te fab doomi jàmbur ji jébbal ko boroom defaral na ma foofee warga ci loxo boppam ki doon nettali moo moo wax lool nee na sëñ bi defaral na ko foofee warga ci loxo boppam nee na gis na mu génne doju mbéy taal gis na fa it ak mu mu xuraas mooy weñ gi ñuy samp di ci wékk satala gi naar yi ñoo ciy tàngale ataaya te bi muy agsi gisu ko fa nee na gis na ko fa te bi muy doog a agsi gisu ko woon foofu sëriñ bi nekk sëriñ Tuubaa xaada la woon law maxtaara la ni ko Mamadou lu la andi fii mu ni ko fas la yéenee gis mbaama dox ba dee sëriñ mi ni ko tàggu woon nga Seex Anta bi ngay ñëw mu ni ko déet sëriñ mi ni ko koo tàggu ci fere yi mu ni ko kenn dama toog ba xam ni mënuma laa ñàkk a gis rek ma jug ni damay dox ba gis la mbaama dee sëriñ bi ni ko boo demee nga nuyul ma Cheikh Anta radiyallahu taala nee ko gis nga ma fagabon Gabon mbaa dégg nga ko mbaa di nga ko ko wax mu ni ko ko waaw nee na toog na fa ba tàkkusaan mu gis ñooñee deewoon dekki jug di daw sëriñ bi ni ko dégg nga li wolof di léebe nee na loo def ba dee boo dekkee ba ko xoolal ña ngay daw man kat la ñuy daw mu ni ko lii de mbàkke yaa ko man rey dekkal lii de bu ko Muusa alayhi salaam manoon kero ba mu labalee Firawna dekkal ko rey dekkal yaa ko man yow dong ña ngay daw di sëriñ bi ni ko wolof nee na loo def dee boo dekkee bàyyi ko loolee kat dëgg la wér na yal nañu sunu borom dimbulee ci liggéeyal sëriñ Tuubaa xaadaloo la maxtaaloo ca na mu ko bëgge ci lu dul benn nax na te musal ñu ci barkeem te may nu tawféex lu sax lu sax amiin yaa rabbal aalamiin